salaamaaleykum chers amis internautes de la Médina TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek mbokk yi dañuy àddu kon ci coowal Daba Seye ak boroom këram boobule di Mor Mané ginnaaw kon ba xibaar ba jibee di fësal ne moom Daba Seye tas na wala boog fay na ba ñibbi ci ay mbokkam kon xibaar boobu mi ngi wéy kon di indi polémique bu baree baree bari ginnaaw bi nga xamante ne kon moom Daba Seye miin nañ ko mu nekk ab chanteuse boo xamante ne Sénégal fii xam nañ ko bu baax a baax waaye rek fësal nga xamante ne kon doon na ko fësal mbëggeelam ak cofeelam ci borom këram boobule danoon sax ménagère am saa su nekk rek mu ko daan way di ko tagg ba miinal sax turu borom këram boobu boobule ci nopp sénégalais yi bu baax a baax a baax ba mel ne kon seytaane dugg na ca diggante ba ndax ñoom ñaar kon xeex nañ xeex bu méttee métti ba ki nga xamante ne mooy Daba Seye jamono ñuy wax ak yéen dafa ñibbi ci ay mbokkam ñu bëri ne nag dafa fay ñii ne kon dafa tas waaye lu ci munti am rek beneen xibaar ba tey fësal ne kon ay mbokkam sax wala sax famille ñi nga xamante ne ñoom ñooy Daba Seye ñi ngi dox kon médiation ci diggante boobu le pour moom mi nga xamante ne moom mooy Daba Seye mu delluwaat faat ja sëy ba waaye moom moo bañ rek daal di doyal sëkk li waral nag xeex boobu lee sax ñu jot kon xibaar ba tey biy fësal ne rek eh, doomam bu jigéen kon mën nañ ne ca la coow la jóge rek ba daal di teersee kon ci xeex boobu lee ba fay sax mujj ci am ñu bëri na itam sax divorce ba am na mu mel ne rek kon loolu nekk xibaar boo xam ne neexul kenn kenn kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay soppee Daba Seye waaye sénégalais yi ndax eh, remarqué woon nañ bu baax baax cofeel ga nga xamante ne ak mbëggeel ga nga xamante ne amoon na seen diggante boobu les référence bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy Aïda Samb saa bu ko invité ci ay pla événement am rek bu jëlee micro ko je suis fier de toi ndax sëykat nga jàmbaar nga muñkat nga muy loo xamante Sénégal yëpp nanguloon nañ ko waaye seytaane fu mu xajul rek lay dugg ba tax équipe Medina TV di ñaan rek yëf yi yàlla sotti ci ndox mu sedd guy moom dafa sëy euh, ci cofeel nga xamante ne sekk na koog borom këram rek yàlla defaat ci jàmbam delluwaat ci këram toogaat sëy sëyam uuf njabootam ndax ñu bëri itam euh, nangul nañ ko loolu su ko defee rek mbokk yi ñu wax ne wéy liké su ko defee rek dara du leen rek suñu ay information si et d'ailleurs waaye rek ñu fàttali ne itam xibaar bi ñu ngi ko jotee suñu ay naataangoo jàngeen jëf